salaamualeykum wa rahmatullahi taxala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi waa kër Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimu Rasoul kon ci ndigalul sëriñ Mountakha xalif général des mourides sëriñ Makhtar Sougoumi xalifa sëriñ Jéeri Wadaan njiit ak teewaay ak kilifteefu sëriñ Bamba Sougoumi xalifa sëriñ Ahmed Tasrif Sougou moom sëriñ Jéeri Wadaan noo ngi dëkkmal màggalug waadaan gi nga xam ne moom lañ ci fàttaliku ndigalul sëriñ Touba loolee mu joxoon taalibeem ba di sëriñ Ahmed Tasif Sougou ngir gàttal danañu jox kàddu jëwriñam sëriñ Mama Sougou danañu fàttali aslëf ci bis bi waaye yëgal ko ñi ko sëriñ bi bokkal ci njabootuk sëriñ tuubaa gi ci seexi sëriñ Touba yi ci bokki darmanko yi ci taalibe yi kon nag ñi ngi koy yëgal mboolem ku nekk ci Sénégal waaw bu nu sañoon waa Sénégal gépp laa ñu ñëw fi fekk ngir nu teral sunu baay ndax Sëriñ Tuuba lii nu nekk tey moo nu ko jox moo ko jox sunu baay sunu baay yor ko diirub lim ko def di ci sant Sëriñ Tuuba di ci sant yàlla di ci sant sëñ jéeri waadaan eh, ba nu agsi ci agsi gi nag mooy yaakaar sunu baay rekk te bëgg ko te yemale wuñ dara mu yor nu yor gu rafet di nu wax ci sëriñ Tuubaa lu lu lu jara dégg waaw ba mu jóge fi wëccinoog sunu mag nuy doxe nan doon doxe ci dunduk sëriñ Ahmadu Tasrif mu mel ne nag waaw wii mu sëñ Tuubaa jox da koo jële ci xolom moom sëñ Tuubaa moo tax amuñu ci lu nuy naxasaale walla nu ciy xeeb walla ndax loolu la yàlla def nangu nañ ko nam ko ko defalee it mooy benn bisu koor la woo bay mu toog ci wetam mu ne ko Ahmadu mu ne ko Mbacke mu ne ko danaa la defal bu mbindeef du la mën a yàqal ak koo àndal danaa la may loo xam ne ku yëkkati sarax xelam du ko daj eh, eh, eh, ak koo àndal loolee nag ci la nekk muy bis bii mu jëm mu ne ko nag bis bii nu jëm nag fu la fekkati na nga ko teral tiraanga joojee nag ci la ne taalibe yi itam sant nañ leen ndax bu nu wootee ñu tey nag ñu ngi woote bis bu tedd bis bu màgg bisub Cheikh Ahmadou Tasrif Sougou moom sëriñ Jiiri Waadaan Sougou muy màggalu ko Waadaan ren di quatre-vingt-quinzième édition Serigne Touba joxoon ko Serigne Ahmad vingt 1926 ba vingt 2022 muy 95e édition ren jii tey ñu ciy woo ñëpp di woo mboolem ku ñu bokkal Serigne Touba surtout nag ñi nga xamante ne ñooy sëti Cheikh Mahamadul Moustapha ba ci sëti Cheikh Mahamadul Moutada ñu ngi leen di woo ñu njabootu sëñ Ahmad Tasrif gi ndax sëñ Ahmad Tasrif njabootu Serigne Touba gépp la amaloon jàmm. di koy yëgal tamit njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ba ci ki nga xamante ne moom la Serigne Touba mu ci seexal ñoom ñëpp seen njaboot ñu ngi leen di woo ci bis bi nga xamante ne moom lañu ñuy waajal muy màggal gu Waadaan gi bu ne suba la ñaar fukki fan yi nag incha allah ñun sët yëpp dana ndaje fii ci kër si Ahmad Tasrif Sougou waajal fi bis boo xamante ne mooy bisub si Ahmadu Tasrif ñekk ci fàttaliku dik ci ñaanal ci guddi gi nag danañ fa amal ay waxtaan yu am solo yu mag xam naa ki nga xamantene mom lañ tan rem di mu wara def conférence bi muy Serigne ahmed Tassif Sougou mom Serigne Bamba Sougou mo koy amal ak mboolem njabootu Serigne Djily Wadane Sougou yëpp ci seni téway ak njabootu Serigne Touba gep ak mbokk yëpp sha allah ma ngi wax nak ci turu Serigne ahmed Tassif Sougou mom Serigne Ahmed mi nga xamantene mom ak ci sët ak Serigne Khadim Amar mi nga xamantene doomu soxna Umul Xayri la ak Serigne Sidi Mbacké mi nga xamantene momit moom it soxna Bintu Sougou si Ahmad Tassif Sougou moo ko jur. momit ma ngi wax ci turum ak turu mbolam sati si Ahmad Tasif sugu yep ñu ngi leen di woo di séentu daal ñep nak ci bis bobu képp koo xamantene dal am am nañ teneen ak yow ñi ngi lay wo ci bis bobu nga ñu amu ñu benn bis bu bisu si Ahmad Tasif bobu di wax ne comme ni ko kilifa yi waxe rek ñu ngi leen di yëgal bis bu mag bis bu tedd bis bu reuy ci ñun bis bo nga xane amul benn buñ koy dendalé muy ñaar fukki fani koor gi nga xay seigne touba khadim mustafa Mustafaa ko joxoon si Ahmad Tasrif mu di ko màggal ba jóge bàyyi fa ay ay njabootam ca bopp ba sëriñ Bamba Sugu ak sëñ Amet ak sëñ maam ak sëñ Amet soxna bint ak soxna Nday man nag maa ngi woo képp koo nga xam ne sëtub sëñ Tuubaa ngay jigéen wala ngay sëtub sëñ Jéeri ngay jigéen wala nga jët sëtub Seex Ibra ngay jigéen ñu ngi woo ñépp ci bis bi ndax kat bis bi séentu nañ ci loo nga xam ne buñ sañoon bokk mboolu mu jullit ñu ngi woo ñëpp di woo itam sama moroomi maire yëpp maa ngi leen di woo di leen xamal ne leen màggal gi ñu ngi ko yëgal ñëpp comme ni ñu ko daan yëgale fu waaye mën a nekk rek woo nañ la di la ko yëgal di ñaan yàlla na ci yàlla yóbbu ak bisimilah rahmaani rahiim ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génteeg alhamdulilahi rabil sama mbokki taalibe yi ci ndigalal sëriñ Bamba Sugu ñoo ngi leen di woo ci sunu bis bii nga xam ne amuñu lu dul bis bii di ci jiital sunu jàmbaar ja Alaaji Taala Seen ak njabootam di ci jiital Baye Seeni Ñang ak njabootam ak Baye Aatu di ci woo sunu mbokk yëpp amuñu loolu bis bii nag bu nu sañoon yéen taalibe yi ngeen ñëpp ngeen teew si bis bi ci ànd kook seenu njaboot. bis bii ñuy def nag sëñ bi ci ndigalu mun taxaar rek la koy teg ndax moo fi nekk sëriñ Touba te sëñ Touba moo digle woon bis bii te njabootu sëriñ Jéeri gi rawatina waa kër sëñ Ahmad Tasrif amul lu sëriñ Touba kon ci loolu la sëriñ bi wooyee mboolem njabootu si Ahmad Bamba gi ñëpp mboolem njabootu si sëriñ Touba yëpp. góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ko dagg ci waa Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci waa Cheikh Mouhamadou Mourtala mboolem ñëpp sëñ mi ngi leen di woo ni sëriñ bi jotlee ay kàddoom ak i nuyoom noonu lay nuyoo xalifaam di magam sëriñ Makhtar moom sëriñ di ko ñaanal yàlla gën a guddal fanam may ko wér di woo mbooleem jabootu sëriñ Jéeri gi ci bis bi di mboo woo mbooleem ñi aju ci kër sëriñ Touba te leen di tudde ay Cheikh sëñ bi ne yéen ñëpp mi ngi leen di woo ci bis bi bàyyiwu ci kenn ndax bis bi yéen a ko bokk sëñ tubaa ko jox sëñ Ahmadu Tasrif te sëñ tubaa rek a ñor ñëpp sëñ bi mi ngi woo mboolem autorité yi tàmbalee ci président de la république monsieur Macky Sall ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy autorités yi nekk ci région Louga tàmbalee ci gouverneur ñëw ci préfet ak ci sous-préfet sëñ bi tamit noonu lay wooye monsieur le maire bi nga xam ne moo nekk colom te am liggéey bu rafet boo xam mi ngi koy def muy Aziz Fall mi ngi koy wooyee nag noonu lay wooyee mbooleem maire yi ci gox bi yépp <coughs> kenn ku nekk incha allahu sëñ bi dana yónnee ci ndaw yow mu ñëw soññi la bis bi mbooleem kuy autorité sëriñ bi mi ngi lay woo di leen fàttali bis bi di leen wax ne ñaar fukki fan la ci weeru koor di 22 avril bii ñu jëm muy tomboog bisu ajjuma con ci bis boobu la sëñ bi di woote waaye ku xam sëriñ Ahmadou Tasrif xam bis bi ni ko sëriñ Touba joxe woon li ko ci gënoon ñor bokk na ci muy ah jàng arxuraan kon sëñ bi nee na mu ngi woo mbooleem daaree arxuraan yëpp yi nekk ci réew mi ak mbooleem kuréelu xasida yi mi ngi leen di woo ci bis bi di leen wax ne loolu bokk na ci li nga xam dafay taaral bis bi noonu la ci wooye nag taalibe yëpp ak am di jàmm yëpp. këru diine yi tamit fàttewu ci genn këru diine muy tiya tiwaawoon sëñ bi mi ngi ci woo sëñ Mbay Si Mansour mi nga xam ne day kenn fii di kenn ci moom di kenn ci njabootu si Ahmad Tasrif mi ngi ci woo njabootu xaadir yëpp yëpp yëpp waa kër seex naa seex saat bi sëñ bi nee na bàyyiwu ci kenn mi ngi leen di woo ci bis bii seex aya mi nga xam ne moo fi nekkal xalifa général al qadriya xadrat xadriya sëñ bi nee na mi ngi koy woo ci bis bi sëñ bi nee na tamit mi ngi woo mbooleem altijaaniya ak fu ñu bokk ak fu ñu jëre wér rek mi ngi leen woo ci bis bi mboolem këru diine yi daal ñi mu bokkal diine ci réew mi sëñ bi neen mi ngi leen ci woo mi ngi ci woo tamit jamayaat islaamiya yëpp sëñ bi nee na mi ngi leen woo ci bis bi mbooleem ku yore jamayaat islaamiya ci Sénégal di yëngu ci turu diine sëñ bi nee na mi ngi lay woo mbooleem société civile bi ci réew mi yëpp te luy yokk réew mi luy avancer réew mi luy baaxal réew mi sëñ bi mi ngi la ci woo sëñ bi nee na tamit noonu lay tàllale loxo mbooleem parti politique yi ci réew mi yëpp mi ngi leen woo ci bis bi lu tax sëñ bi woote nag dafa amul lu dul sëriñ Touba. mbooleem ñi nga xam ne ñooy askan wi ñu bokk te mooy njaboot sëriñ Njeri gi ñu ngi leen ci woo mbooleem ndarmanko yi ci réew mi yëpp ñu ngi leen ci woo. sëñ bi bayiwu ci kenn kenn di ñaan bis bi nga xam ne ñaar fukki fan la ci weeru koor lu tolleeg tombeeg 22 avril yàlla nañ ci àgg ci ak jàmm ak salaam nit ñi ñëw fi dundal bis bi dundal guddi gi ci ay bernde ci ay jàng xasida ci saafonte jokko ak bokk ak ci ay waxtaan loolu daal moo nekk yéene sëriñ bi kon ngeen déggee ko noonu ñuy ñaanal nag sëriñ bi yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér ak mbooleem rakkam yi mu nekkal te ñu bokk si Ahmad Tasrif ñëpp wax